salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xayaakumullah Cheikh Aboubacar ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw man de ci côté bi may wax mooy loolu nga junj tasawuf boobu nga xam ni moom lañ ne mooy ihsaan. xayaakallaahi ka xaalak. tayib léegi nañ xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu Jibril ba mu suree ihsaan lan la njëkkee. dafa ne an taabudallaha ka annaka taraahu nañ taxaw ci an taabudallaha léegi ñu xool tasawuf bu nekk fii tasawuf bi ñuy gis tasawuf bal la mooy tasawuf bu gëm ni lépp yàlla la tasawuf boo xam ni lu ñu gëm mooy boo sujootalee garab nga sujootal nit jëmmi yàlla nga sujootal loolu mu ngi ci jawaahirul maani waa ji nee na ko garab bi ngay sujootal maanaam jëmmi garab nee na yàlla nga sujootal fil xaqiqa loolu ku def jawaahir dañ ko gis tasawuf bu ñu gis léegi mooy tasawuf boobu day daganal ñaan ña tëdd ci bàmmeel tasawuf bu ñu gis léegi mooy tasawuf boo xamante ni nee na seeni awliyaa yi xam nañ kumpa jël lenn ci cëru yàlla jox ko seeni awtaad yi est-ce que loolu dafa méngoog an taabudallah yéen rasulaa sallam bu muy firi ihsaan dafa ne an taabudallaha fa la tàmbale mooy wéetal yàlla léegi lii yëpp buñ ko xoolee dafa wuuteeg jaamu yàlla dafa wuuteeg wéetal yàlla ñu bugg a wax ni loolu moom mooy ihsaan shirk est que mooy ihsaan dem ci bàmmeelu ko faatu ko xëy ñaan tasawuf dañ koy daganal tasawuf nee nañ boo sujjootalee Euh, borom jawaahir boo sujootalee garab yàlla nga sujootal est-ce que loolu moom mooy jaamu yàlla comme da ngay gis ni ahlul bidaa lu ñuy wax ci ñoom lu ñuy sukkandiku seeni i ci ci maanaam ci seeni i mazhab du aaya bu wër du xadis bu wër bu ñu amul aaya amul hadis nag ñu dem jël beneen mbir nag bu ko xaml ci li nga xam ne moom ñoom moom lañ gëm tasawuf bu ñu wax nag mooy bii ñuy gis bii ñu gis muy tasawuf bu bu bon loolu boo xamante ni dafa wuuteeg loolu sax tasawuf bi nga xam ne mooy bu njëkk ba mooy ñoom junay da ak ñu mel noonu tasawuf bi am fii mooy tasawuf ibnu arabi ak ibnu farid tasawuf yooyu la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu comme loolu wallahi ay ay caaxaan maanaam wahaabi yu def dañoo jeexal puisque léegi maam góor sax ma ngay jéem a dellu siwaat ibnu taymiya xanaa da koy dekkali waaye maam góor moom ma ngi koy jéem a te du ñëw it nag ndaxte man maay tee mu ñëw ibnu taymiya da daan giñ ci turu boppam léegi kon mu giñ ci yàlla day giñ naan la amri giñ naa ci sama dund ibnu taymiya nee na mën nañoo giñ ci turu yonent bi te loolu bi mu ko waxee daf koy giñ imam ahmad majmuul fatawa boo ca demee ci tome numéro vingt sept page numéro trois cent quarante neuf da nga fa fekk ibnu taymiya mu ni wa an ahmad ibn hanbal riwayatan annahu yuxlafu binnabii sal allahu alayhi wa sallam xaasatan ibnu taymiya nee na jële nañ ci imam ahmad ni mënees na giñal yonent mënees naa giñ ci tur yonent bi waaye ci moom rek lañ ko mën a lañ ko mën a giñe léegi xam nga léegi bu fekkente ni Euh, dañoo toll ci jamono yi dof doflu ak di reewantu loolu mënees naa bàyyi wahabi mu def ko ay mbiram la euh, waaye bu fekkee dañuy waxante dëgg rek ibnu taymiya li mu def ci njombe yéen bi daane ngeen ku ko def dangay dem safara ibnu taymiya nee na abdullah ibnu omar da daan sos ay biddaa ci diine ji waaw waaw ibnu taymiya moo ko wax de moo wax ni abdullah ibnu omar da daan sos ay biddaa ci diina ji xam nga fu mu ko waxee may ma tuuti ma waxal la ko nee na ibnu taymiya moo ko wax de Euh, dañuy wa amma fa amma qasdu salaati fi tilqa al biqaa allati salla fiha fiha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ittifaqan maanaam barab yi nga xam ne yonent bi ñëpp xam ko dëppoo ci delluwaat ca barab yooyee di ko def di fa julli nee na loolu benn nit musu koo def ci saxaaba yi ku dul Abdullah ibn Omar te it loolu biddaa la boo xam ni dana yóbbu nit ñi ba ñuy bokkaaleeg yàlla nekk ay mushrikuun mu ne Abdullah ibn Omar moom moo sos biddaa boobu ci lislaam ca muñ ko ba mu koy tër dani taxarri salaati fi musallayaati nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa min sunnati alxulafaai wa arrachidin bal huwa mim mimma btadaahu ibnu Omar nee na di fekk fa yonent bi ma a jaar julli fa nga jullee fa yow nga dem di fa julli nee na loolu kenn mësu koo def ci saxaaba yu mag yi nee na waaye biddaa la boo xam ni Abdullah ibn Umar moo ko sos demal ci demal ci iqtidaa siraatul mustaqim muxaalafat ashaabil jahim ca deuxième tome ba page numéro deux cent soixante-dix-huit nga set deux cent soixante-dix-huit boo ci demee da nga ca fekk lii ibnu taymiya waxal ko sayduna Abdullah ibn Umar waaw su fekkente ni wax lu ñaaw ci saxaaba yi ba jël biddaa di ko askan ci ci ci ci ci ab saxaaba yow royatoo ko te jëf ja te mënoon ko caa roy noppeetoo ca waaye nga loolu biddaa la te moom moo ko sos te te te te ñoom wahaabi yu ni Ibn Taymiya gaa bokku ci ndax moom nee na wa kullu dalaalatin fi naar na bokku yonent bi na wahaabi yu ni lool waaye Ibn Taymiya na wa kullu dalaalatin fi naar nee bokkul ci waxi yonent bi wahab yu na na nga takk seeni fas nag seen fas yi fen di dawal guddeeg bëccëg pour saxalal loolu yonent bi waaye Ibnu Taymiya daal weddi na ko nee na yonent bi moom ba muy wax daal wax ja xadis ba wa kullu dalalatin naar moom bokku ci gannaaw yonent bi xasu ko wax nag ah ab kalima arabiya la nag léegi waaye nag ku ko wax noo koy mën a noo koy mën a layale wa kullu dalalatin fi naar yonent bi de waxu ko yonent bi waxu ko waa léegi nag bu ko bi waxee bëgg ko askan ci ahlu tasawuf léegi nu muy mën a deme maanaam nu fu mu koy mën a layale te tasawuf ci boppam ibnu taymiya nee na man salaka maslaka al junayd min ahli tasawufi wal maarifati kaana qad ihtada wa naja wa saida téeréem bi tudd alxasanatu wa sayiat ca la waxee mu ni ku sóobu ci tasawuf comme ni comme ni ni junay di sooboo da ngay daal di jub mucc texe léegi bu fekkee moom moom ibnu taymiya mantiq mantiqii la kon moom suufi la gannaaw yoon wi ci jaar danga boole jub da nga mucc da nga texe te xam na ko moom bu dofut kon dañ naan jaar na ca bu dofee nag wala mu kandalu nag wala ay mbokkam kandalu xëy na looloo ko cay jaar baax na léegi nag des na ma war a gisante jeeg maam góor te ñëw aoudu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki groupe wa aiddu lahum ma stataatum min quwa wa min ribatil xayl comme niñ leen ko dige woon ni danañu ñëw ci kaw wahaabi yun yi nga xam ne dañuy dañoo gëlëm fi ñu toll ni amatuñ sëriñ wahaabi yun moom li ñu li ñu ñàkk fi ñu toll ni mooy kilifa jokkootuñ ci kenn parce que Ibn Taymiyya mi ñu yaakaaroon ñoom dañ koo jàppoon te xamuñu ko tey nag gis na ñoom yu ñuy wax yëpp ay ay sirk laa ki ay bidaa la yëpp Ibn Taymiyya da koy def saxal ko euh, alpha ba mu ngi fii ñëw di dal ci kaw tasawuf bëgg koo génne ci diine ji naan puisque tasawuf dañuy wax ni lépp loo gis yàlla la maanaam yàlla day bennoo ak jaamam yi loolu kay bala moo ñëw ci tasawuf bi gannaaw nee nañ xëy na ñu njëkk ña mais ñu mujj ñi moom loolu lañ gëm bala moo wax ñooñu na dem ci ibnu taymiya ibnu taymiya nee na eh, yàlla dana benn akub jaamam dëppoog moom te yàlla dana wàcc tamit ci kaw ab jaamam xulul boobu muy nee na yàlla dana def xulul ci kaw ab jaamam wala jaam bi xulul ci yàlla bu fekkee yàlla moo def xulul bi kon su boobaa jaam day am kàttan bu mel na yàlla bu fekkee jaam bi def xelul ci yàlla yàlla ji day xeebal lu mel na jaam bi tey bi wax na loolu loolu lijjanti nañ ko maji maji muul fatawa soo ca demee ci boo xamante ni bii ñoom dañ ko taxqiq sax maji muul fatawa soo ca demee nga dem ci ci ci bi nga xamante ni bii Abdourahman ibnu Muhammad ibnu Qasim moo ko taxqiq mujammaul malik Fahd tibaako da nga gis lii ma nga ca kon na bàyyi ñeneen ñeneen dem ci Ibn Taymiya par Ibn Taymiya li mu wax ci ci ci ci foofu kay doy nag leeraay leneen la ko topp mooy day wax ni dañuy sujjootal ku bokkut ak yàlla nee na nee na tasawuf day saxal ku bokkut ak yàlla waaye loolu bala ngay ñëw ci ci keneen ku dul ci waa tasawuf njëkk la dem ci si sëriñ Ibn Taymiya nga déglu lu la ci wax gaa yi ñoom dañ dul jàng te duñ noppi waaye Ibn Taymiya moom dafa wax mu ni Ibnu Taymiya dani li nga xamante ni bii ak weddi yàlla la li nga xam ni ak weddi yàlla la ci jëf ju ñu mën a gis nee na li nga xam ne ak weddi yàlla la ci ay jëf yuñ mën a gis lu mel ni ki sujjootal ay xërëm ak saaga yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñaaw moo ñaaw exemple yi muy joxe ak yu mel noonu mu nu yooyu mën naa nekk ci nit ki te du tax mu nekk mu mu te du tax mu wedd yàlla nee na nit ki mën naa sujjootal xërëm mën naa saaga yonent bi te du tax mu nekk yéefar boo ko weddee dangay dem ci majmuul fatawa téere bi gën a bon ci téere yi da nga ca fekk ibnu taymiya mu ni wa ma kaana kufran min al amali zahirati li nga xam ne ak weddi yàlla te bokk ci jëf yi nga xam des koy gis ka sujudi lil awsaani ñu mel ni nga sujjootal xërëm nga xam ne sujjoot bi xërëm wee ko moom wa sabbi rasuli ak saaga yonent bi ibnu taymiya ko wax wa naxwi dalika ak li ñu demee fa innama dalika li kawnihi mustalziman li kufri l batin mu ni pour mu mën a nekk ak weddi yàlla daal day fekk ni weddi yàlla gi yow loolu moo nekk sa xol lool nga nar mu ni wa illaa bu bu loolu amul rek bu fekkee loolu naroo ko rek naroo weddi yàlla mën ngaa sujjotul xëy mën ngaa saag werante bi aywa léegi ba ban ban kan ci ahlu tasawuf moo mos a agsi fii te it est-ce que yow yëgoon nga ni sa sa sëriñ bi waxati na wax na wax na loolu bu fekkente ni dem ci bàmmeel di ñaan kiñ ki suul ci bàmmeel bi loolu Ibn Taymiya moom it moo ko wax man vraiment wahabi yu ni fuñ nekk fuñ nekk xaw ma ko boo demee ci iqtidaau siraat almustaqim li muxaalafat ashaabil jahim Ibn Taymiya moo ko bind seen benn docteur bu ñu wax Nasir Abdul Karim al aql moo ko taxqiq te mooy moo ko wóorliku ba mu wóor Ibn Taymiya dani wa ma fi quburi l ambiyaai wa saalihina min karamatillahi wa rahmatihi wa ma laha inda allahi min alxurmati walkaramati fawqa ma yatawahamuhu aksarul xalq mu ni li nga xamante ni bii moo am ci bàmmeelu yonent yi ak nit ñu baax ñi ci karaama gu leen fa yàlla degal ak yërmande ak lañ am ci worma ak teraanga gi bàyyi ko fa yàlla foo ko takk weesu na ko mu ni wa kadalika sualu baadihim nnabiya linnabiyi boog wa kadalika sualu baadihim linnabiyi sallallahu alayhi wa sallam aw li gayrihi min ummatihi xaajatan fa tuqda lahu fa inna hada qad waqaa kathiran mu ni ma naka noonu armeeli yonent ya nit ki dem fa cib yonent ñaan ko ay soxlaam su'aalu baadihim lin nabiyyi kenn ci ñii dem ci bàmmeel bi ñaan yonent bi soxlaam aw li gayrihi min ummati wala mu dem ci keneen ku dut yonent bi ci bokk ci xeet wi mu ñaan ko ay soxlaam fa tuqdaa lahu ñu faj soxla sa fa inna hada qad waqaa kathiran ibnu taymiya ne loolu am na ba tàyyi nit dem ci bàmmeel yonent bi ñaan ko ay soxlaam soxla sa faju mbaam mu dem ci bàmmeelu keneen ku dul yonent bi ñaan ko ay soxlaam soxla sa faju ibnu taymiya de moo ko wax iqtidaau siraat almustaqim li muxaalafati ashaabi aljahim soo ca demee da nga ko fekk ni ibnu taymiya moo ko ca wax demal ci ci juzu ñaareel bi ñaari juzu rek la juzu ñaareel ba dem ca deux cent cinquante quatre page deux cent cinquante quatre deux cent cinquante cinq nga xool boo ko ci fekkul bu ko defee looy waxati bu ëllëgee nga wax ko bu fekkee maarifatul xëy bi bala nga cee sikkal kenn kenn kenn dañ lay delloo ci ibnu taymiya rek dañ lay delloo ci ibnu taymiya ibnu taymiya moo fi waxoon ni bi sàngam nàngam dana xew bu xewee nàngama cay topp mu ba mu ko waxee pare daf koo waat juróom-ñaar fukki yoon yu tegal soixante-dix fois yu tegal moom la ca ñaan yaa ngi dégg moom la ci giñ ba mujj taalibe yi ni ko waaw boole ci bopp bu soobee yàlla mu ni leen bu ma ko ci boole de ajuma ko ci lii moom day am bu neexee yàlla ak bu ko neexul bañ ko xamalee ni ko loolu ëpp na dañ leen lii ma wax yàlla da ko bind ci lawhul mahfuz maarifatul xëy bi mën naa weesu loolu te loolu yaakaar naa ni temps yi ngeen a nekk fii di ko weddanteeg ñun léegi loolu moom temps yi ngeen a nekk fii di ko weddanteeg ñun yaakaar ak lu ngeen dof dof dof ibnu taymiya moom moo wax mu ni àjjana amul jant amul weer amul bëccëg amul guddi ba mu ko waxee dañu teg tiit daal di ni waaye euh, suba ngoon danañ ko xame ci ak leer guy jóge ci aros ci la ñuy xàmmee suba geeg ngoon gi demal ci alfatawal kubra boo ci demee fekk lii ma la wax alfatawal kubra bu ibnu taymiya lii la ca wax ci juzu numéro cinq page numéro soixante quatorze léegi àjjana amul jant amul weer amul guddi amul bëccëg xam nga lu tax mu dabaata walakin tu'rafu al-bukratu wal asiyatu bi nuurin yadharu min qibali al-arsh te lii kenn jiituwu ko ci moo ko njëkk a wax léegi tilka al jannatu allati nurisu min ibadina man kaan taqiya ñu ngi koy waxee walahum rizquhum fiha bukratan wa wa wa wa ashiya walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyan al bukratu wal ashiyatu foofu ba mu yëgee ni looloo ngi ci kanamam te mën naa weddi waxam ci lu gaaw te moom tappalekat la ruur fii jeex fee nafiq la laa bëgg a wax mu daal di gaawantu daal di koy dindi